yaay booy nu ñëw fii jàkkaarloog euh, euh, fekk la ci sa place ngay liggéey waaye nga jàkkaarlook kër gi nga xamante ni fa la xaasi mu dëkk mooy ki nga xamante ni dañu wax ne moo def ñaawteef fi nga xamante ni moo xew barki dem ñu lay laaj yaay booy bi nga yëgee yëf yi ana naka la la def en tant que yow ngay dëkkandoom xanaa mu metti ma lool def ma soog bett ma ma xam ne nattu la bu yàlla teg ci koom mais du yaree du koom masuma koo gis mu xeex masuma koo gis mu xuloo masuma koo gis mu def lu correct loo xam ne correctul loolu laa xam ci moom nag ba mu juddu nag fi la ma fekk ba muy judd ngénteem fi la ma fekk mosuma xam dara ci moom tey lu dul dégg lii tey nattu bi teg ko yàlla teg ko ko mu naqari ma laa am lu ma naqari ci moom tey laa ko soog a gis tey. ci na dañu wax ni bëggoon ngénte moo tax mu ñëw def li nga xamante ne maay mooy ñaaw fi ndax euh, loolu da ci ciy koy dëggal wala euh, ndax loolu am na wala amul. loolu moom mënuma ko dëggal parce que dégguma fi loolu moom waaw mënuma dëggal loolu parce que man dégguma ko wax dëgg yàlla fii dëgg dong laay wax te yàlla. boo xamante ni dégg nga ko ci li nga xamante ni moo tax mu def ñaaw teefi. déedéet dégguma ko ñaawteef bi bi ma koy dégg man dama yeewu suba rek am na dama yeewu suba ubbi sama place fi rek mu am ku ma ko wax ma ne ko déedéet loolu amul nii laa ci am ñaawte mu metti ma nag daf ma def soog sax dama feebar. ñu toll nii ana yaayam. yaayam nag bi ma yeewoo suba dem naa fi ñu ni ma dafa génn gisaatuma ko kii moom la ñëw di ko seet. ma ne ko wax dëgg yàlla gisuma ko mu dugg mu laajte ñu nu ko nekku fi waaw nekku fi moom waaw yaayam moom génn na nekku fi wax dëgg yàlla ngénte liñ doon wax ndax yow mi dëkk ci koñ bi am na wala amul ngénte ngénte amu fi ndaxte ngénte li dañoo tudd doom ji après la ngénte li tas xanaa di ko metti lu rek te di ko naqarlu ndax xale bi de du si gis sa xool nit du sigg sax xool nit ñun ñu judduloo moom nekk moom fii fanweeri at ci ren ma nekk ak moom musuma gis xaas ñu ne xeex na wala sànni na nit xeer wala okk na nit bam naaj wax dëgg yàlla su wàccee toog na ci buntu kër yaayam ji su fa jógee ma nga néegam su fa jógee xëy na lépp loo xam daal ndogalug yàlla moo egsi ci kawam rek moo egsi ci kawam te jombul kenn wax dëgg yàlla ndax yàlla da lay teg nattu yàlla na nga nangu nattu rek te yàlla dimbale la ba nga génn ca nattu ba waaye man da xamaluma ko dara dara dara ti lu ñaaw musuma gisit mu def ñaaw téef xale bu ndaw bu gën a tuuti rek musu koo jooyloo ci koñ bi wax dëgg yàlla kum romb jox na la cër kuy ndeyam jox na ko ko kuy maamam jox na ko ko man da loolu laa xam ci moom wax dëgg yàlla ku dee yaag sa tra yu bàmmeel loolu laa li li li ñuy wax ni bëggoon ngénte moo tax mu def ko est-ce que da ngay ànd ci loolu wala non non man nag ndax nekkuma ci néegam nekkuma ci xolam wax dëgg yàlla waxtaanut ak man it ci yooyu waaw loolu moom lu ma la ci wax it wax naa loo xam ne xawuma ko loolu moom dese na maa leer mbaax gi daal ak yaru gi man xam naa ko ci moom ak yiwe gi wax dëgg nattu la nattu la rek mi ñu ngi koy metti lu nag. bi loolu amee ba léegi est que yaayam yéen a ngi koy gis ak moral bi nga xamante ni moom la nekk. Ah, bi ñu amee ba léegi nag man yaayam gisaguma ko wax dëgg yàlla waaye moom it am na lu ko metti torop am na lu ko metti torop ndax xam nga ni lii neexul kenn wax dëgg yàlla am na lu ko metti waaw. nim ma def de nim def ay waajuram rek la ma def ndax man damaa bokk ci moom papaam maa moom ñu bokk dëkk gunaas moo ma yar waaw xale bi sama kanam la juddoo xaw ma ci moom benn affaire lii ñun ñëpp la bett ñun ñëpp la jaaxal tamit xam naa nag ndogal la waaye ñun ñëpp la jaaxal ñun ñëpp la naqari tamit ndax kenn mësu koo foogee mënul sax rey ginaar ginaar sax yaayam bu ko rey loowee du ko rey. li ngay dégg ci moom nu wax ni bëggoon tudd doomam ngénte moo tax mu ñëw def ñaaw tef ndax da ngay ànd ci loolu wala. ah nag moom moom ma ci dara wax dëgg yàlla loolu ci dara wax dëgg yàlla li ma xam daal moom moom laa leen wax waaw loolu laa xam ci moom. mësuma koo dégg mu sax saaga nit comprendre te des fois ñooy nekkandoo terrain. di footballandoo aussi même bu nekkee ak ay moromam waxam du bëri bu nekkee ak ay moromam terrain aussi tamit doo ko gis muy kii des fois sax day football ñu koy gaañ mais day résister xale bu mënoon football la xale bu mën a football la. ba des fois sax bu ñu waree football célibataire contre marié dafa ma naan grand ji bi boo ñëwul booy dañ ñuy gagné il faut que nga ñëw d'ailleurs sax fu mu dëkk ak suñu kër ñoo taxaloo fu mu liyee nii si koñ bi la dëkk mais dafa jël ak euh, côté. néeg te kër googu mu dëkk suñu kër ñoo dend depuis mu nekk xale ba nu mu màggee nii mosuma ko dégg si dara te aussi euh, il est sérieux xam nga aussi posé serein moo tax keroog ba mu yëgee lii non dama ne du moom franchement dama ne du moom mais aussi tamit comme li ñuy wax nit ku nekk am na instant animal buy nelaw si yow à tout moment mën na mën nga disjoncté def loo xam ne après di nga ko te xam naa moment boobu foofu la tolloon. moom nga dégganu nu ni ñu bare dañuy wax ni bëggoon tudd doomam def ngénte moo tax mu eh, am som bu mu doon wax ndaw si ndaw si jox ko ko après ci la ko ci la ko jam ay paaka loolu bi ko eh, ndax da nga bokk ci ñi nga xamante ne dañu danuy nangu ni maam ngénte moo taxoon mu def ñaawteef yi. waaw évidemment dafa waroon tudd. man sax tudd la ma wax ndax le mercredi même romb naa ko si bunt kër fu mu dëkk di dugg suñu kër nuyu ko moog booy élage copain am la quoi xam nga mu ne ma grand ji bi damay tudd tudd la ma wax sax mu ne ma grand ji tudd dimanche te aussi jabar ji ba muy nekk élève lu su bëri dama ko daan aidé bu amee exercice man lay ñëw boobu sax mën naa wax xaasim xamagu ko mimi mimi tamit mu nekk jigéen bu xale bu dal quoi mimi sax waxuma la sax moom jabar ji mais magu jabar ji duudu sam booy la duudu saa yu kiwee si man lay ñëw ñuy sottante xalaat des fois sax dama koy gëj a gis dama koy woo téléphone le frère de mimi pour te dire euh, pour vous dire euh, muy duudu muy muy euh, xaasim di jabar ji xam naa leen xàmmel boo xam ni même des fois damay dégg comme quoi que ni jabar ji moo ko teg pression ba mu def. Sénégalais yu bari ñi nga wax loolu. man loolu noonu gëw ma ko à 100 pour cent quoi parce que xam naa mimi dépp mu nekk xale wax naa la mimi ba ma koy xam sax amaana xaasim xamagu ko ndax xaasim moom ba ko waa ko ñu commencé ràññee yàggul. comprendre nga man Mimi xamee ma ko woon loolu Mimi gis moon si moom tamit euh, euh, mu nekk mat ku matérialiste quoi xam nga Mimi fu ma romb dañuy taxaw ba même veille samedi bi. muy soxna si nga xamante ne mooy soxna Xaasim. moom mooy soxna si mais man masuma gis ma loolu si moom quoi moo tax bu ñuy wax damay wax mais des fois dañ may contredire naan ma nit ki mën xam mais bul xam au fond lu muy dund ak yooyu noonu. mën ko naa ko sama kanam la juddoo moom tamit yoroo sama kanam la juddoo màggee sama kanam. loolu daal dafa may jaaxal quoi loolu daf may jaaxal trop man daal pour conclure mooy jàpp naa ne Xaasim ba muy def lii toll na dimension boo xam ni xam nga disjoncté na daal xam nga te aussi xale la il est né en 94 moo sama rakk d'ailleurs ñoo ñoo maase te xale bu nekk xam nga bu amul ko lay canaliser di la rek des fois di nga toll di nga di nga toll foo xam ni non mën nga def lii man loolu laa jugé quoi. dama jàpp ni dafa toll foo xam ni mënut amatul maîtrise amatul maîtrise sax xale tam gisuma mag bu koy jege pour conseiller ko xalaat xalaatal ko fekk ni ngi boo kiiwul nga def lii man loolu laa jàpp mais daal du lii nii du personne xaasim man pour man beneen xaasim la woon jour boobu noonu pour man beneen xaasim la woon mais franchement masul mel noonu toxul naanul màndiwul il est sérieux même am na benn grand moom tamit grand Massar yàlla na ko suñu borom yërëm ko te jégal taxar àjjana moom da doon wax xaasim da posé te aussi foo ko fekk il est xam nga man daal loolu jaaxal na ma taw te aussi tamit chacun son destin ah. moo tax les gens qui jugent nañ def ndànk parce que ku nekk am nga sa destin ku nekk am nga sa destin moo tax aussi tamit nañ ci bañ a di négatif quoi il faut penser positivement xam nga nga wax ni xam nga suñu borom teygul ko lii nii métti na trop ku mu rey noonu loolu man le jour même le vendredi sam benn dafa jóge woon Nord Foire ñëw fi muy ñibbi ma gunge ko sam frère boobu saa yu ñëwee sam frère boobu saa yu ñëw maa koy gunge ba Ridis jumaa ji fa taxaw jël taxi mais le jour même dañoo taxaw foofu man a sam frère am benn bu ñëw approché ñu ne ñu grand bu fekkee taxi ngeen xaar bu yow ngeen demee côté bee ndax fii nii ça ne passe fee dafa am son plus souvent fausses quoi information yi ngeen njëkk a jot si benn affaire lu si bëri du dëgg ndax booy bi dañoo ne fee daa am kuñ fa benn jigéen bu ëmb de huit mois dañ ko rey moo tax it affaire bu tax mu am benn ampleur bi mooy yaa deux mots ñoo ko yóbbu fu mu yeggul mooy baatu ëmb ak baatu rey comprendre baatu ëmb. kon ëmb bi ëmb bi ëmb bi amul. mooy bi nii moo may euh, crime bi tolle bi nii xam nga. moo may crime bi après ba mu gisee frère bi noonu ba mu jël taxi dem man xaar ma doxantu xool mais ba ma demee taxaw sama première réaction kon ko nee nañ femme bu ëmb ñu rey ko rendi xam nga sama première kii moo ne mooy dama wax ni sama xel lii de ko ko def yàlla nañ ko gaaw jàpp mais malheureusement tey koo xam ni ñoo dend kër lay doon moo tax it on sait jamais chacun a son destin moo tax nit ñi tamit nañu xam ñëpp ay nit lañ. maa jël sama appartement xaas man maa ko suuluwee ma dëkk ak moom dëkk gu rafet xaas ki gaañu nag gaañu na ba pare heure bu ma jullee maa ngi koy ñaanal muy Kiné yàlla yërëm ko te xare ko àjjana yu gën ci àjjana yi waaye xaas ndog fu ne lay ñëwee te dañ naan cat bu reyut semmal lii lu mënu woon a ñàkk ju dundam la waaye xaas keroog bañ koy génne sama kër may wax inspecteur ma ko inspecteur yéen a ngi yóbbu koo xamante ni kii def lii du xaas mi ñu xam laajte leen kuy wax te yàlla tax Touba Pikine bopp ba bopp laajte leen kan mooy xaas xaas tuxut naanut wax lu bon fu ñu werantee sax ñun ñiy jigéen dëkk sax mu ne leen àddina du àddina du sama doom lu mu lu muy def ci lu ma neexut damay woo xaas ba mu ñëw sama néeg man ne ko xaas yeddal ma kii ndax yow royuwaay nga xaas royuwaay la kuy wax te yàlla tax koñ bi fii ku ne danaan mënoo mënoo xool ci xaas wii sëna bëgg na boppam fonk na ay waajuram xaas lekkut bàyyi kenn xaas dina jubale ay nit lu kenn yëgut xaas lum la jox ma sàmba yëgut ma demba yëgut am na sutura ànd naag dal donc nag waajur ju ne rek war ngaa séddu ndog waajur ju ne lii nattoom la destin wam la yaayam doxewul bon yaayam kenn xamalu ko mi ngi njaay njaayam jabaram nag liñ koy waxal lépp ku dee ak sa bàmmeel yàlla xam na ñun xam nañ ñun ñu dëkk xaas ñu ñuy fanaanoo xaas xaas bu wàccee kër ga lay jubal si buy ñëwaat seen kër ñun lay kii xaas buy xëy xaas deful bon daal man daal xaas xamme wuñ ko dara dara lu bon kuy dee ku ne ak sa bàmmeel ndax ki ndegee ñun ñëpp a koy fekk ji ku waxta yàlla tax xale bi di nga xam ne lii ko def loo nii sax du xaas mi ñu xam xaas ku du tox ku du naan àndandoo wut kenn ku bon amut. kenn naan soxna si moo ko présin ci ku dee ku ne ak sa bàmmeel mi mi ko doylu la doylu na am na sutura ñu noo dëkk ak moom am na sutura dal na. tey na te lu mu am doy na ko nag mimi lu mu am doy na ko day liggéey mimi day liggéey di liggéey di def ci boppam sonalu xaas sonalu ko tey sonalu ko suba mimi ba lii amee sax dafa waxoon du kii ma ne ko yow boo tëddee ba guddi ñu naan la lii sax xaasa ko def di ko gëm mën a ko demal jugal nga dem nga def sa tatouage man duma bàyyi kenn du ma ko fenaan ma ne ko jugal nga dem mën ne ko lii yow ma ne ko yow da ngaa mës a gis sa jëkkër ci dara ci lu ñàkk fay na mën a ma déedéet ma ne ko xamee woo ko ko ma ne ko man ba ma gisee xaas ba tey xamee ma ko dara lu bon. kon ngénte lii mujj na am. du ñoo tudd léegi nag ba ñu commencé gis ci net beeg yooyu ñu arrêté waaye du ñoo tudd ndaxte loo foogut lu la bett mën la nag lii dafa lii ñun ñëpp la jam. ñun ñëpp la jam xas daal lu ñuy wër ci nit diine ak lislaam kuy wax te yàlla tax ak jaboot di nga waxal xaas lu baax